ku nek mën nga dem lijeenti sa bop bu ngon jotee nga dem tok japp sa njambur ak sa njabot lool mo gëna yomb tay tambulé guñu sax ngeen gis ño xamanteni japp nañu né la leen yëkëti moo ñu yëkkati ñun moy intérêt personnel fekk na ñun romb nañ lool fañu ñu yaré yare may gërëm bu baax suma papa ak suma yaay bi nga xam ñu ñoo ni gu gunge di fàttaliku bu baax suma mam bi nga xamanteni moma yar bu doon suñu ñëriñu bop rek kon duñu tok fi tay di wax ak yeen ndax li lu metti la leadership wala c'est à la limite épuisant mais Sénégal moom mo ëpp loolu Dialoné TV le 31 juillet prochain Sénégal dafay dem ci élection yu am solo muy élection législative ñun day mag nañu xamé nañu du papa Jibril far rek nak mom mo tok di wax waye ñu bëgg Sénégal ño and ak ñun ci mbir mi té yalla xam na né lu mu jaral ñi yaq dina jaral lu ñu tollu ngir defar ndax réew mi rek lañu am Sénégal lañu jox sunuy guddii ak sunuy bëccëg Sénégal motax tax ñoo nelaw ba yandor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 mom que nous bëggoon di ko wax ne bo génné Sénégal dafa am ñaari sentiment yu lay animé bo démé ci dëkk yi nga xamanteni dañu avancer té ñun ñoo leen rawoon ñaari sentiment lay animé sentiment bu bi c'est un sentiment de fierté tout court en tant que humain nga gis doomu réaliser de grandes choses nga xamné ne doomu faté wul li nga xamanteni mom moko indi won ci kaw suuf muy être le vicaire de Dieu sur terre benen bi

enjeux de notre pays Ma candidature fa am un niveau bo xamanteni mom la am réew mi ñu nek juroom ñett fukk yo jël 80% at et 25 ans 75% yo jël at ngi ci at ak la moyenne d'âge aujourd'hui à l'Assemblée nationale tourne autour de 56 ans waaw ndaw ñi ngir yalla nañ ñu